Toubacouta Bourou Saloum Bourou Saloum Toubacouta Toubacouta si baw beñ hey Bour e sate ñaami jam le baye en de la kordi wane lamin ku baye Bourou Saloum sam na bajan di jak mu ngi boy fay mo nekk nañ ci ginnaaw e bi lamb ma ne bi boy mu ngi doon ci ginnaaw hey Toubacouta ma Boy Faye ma ne jëlal leen ma Boy Faye waay jëlal leen ma Boy Faye door na Boy Faye wa ma ne ndax nam ndax nam debbo kiɗana dafa yogo kade lambi jinor na ba pare de bo feme Toubacouta am fi Boy Faye am fi Radiakhé Fabouda Babacar Sow Sow Pape Maron Seejan Jaxaw fils de Batling wala ba xoolee njam ne waajat ba koli njum te suna joora kidiyee